sincèrement bis bu ko sénégalais yi génnee. Hmm. sénégalais yi dinañ mere ñi fi nekk trop trop trop trop sax. moo tax bi ma déggee keroog le ministre du travail di wax naan am na c'est le ministre du travail ah. yaa ba jéeme bi muy wax naan ne am na directeur bu doon audité di jooy ma ne ko loolu man bettu ma sincèrement man loolu bettu ma. parce que degré. s'il ne se rien est-ce que dina jëm. non maanaam moom da doon auditer ñi mu fa fekk. Mhm. seen gestion. non ki doon jooy laa wax. waaw non dafa gis. Mhm. ñàkk yaag ñàkk ñàkk yërmande bi ñi mu uutu bi ñi mu remplacer yore woon direction mu jooy. loolu day am des fois nga dox ba dajeeg benn benn degré de curiosité boo xam ne yow da lay jooyloo man xam naa ni bis bu ñu yëkkatee dossier te ko table bi. gars yi dinañ tal leneen lu dul conférence de presse donc c' est tout à fait normal ñu aaye ko ngir te du moom rek. kii kon ñi ko bëgg yóbbu ci angle réduction des comptes angle fayanto léegi yow dama lay laaj déjà voilà Sénégal dem na kan jël coup d'Afrique tout à fait ma jox la benn exemple rek ci yow la ñuy teewlu ban impact le secteur du sport particulièrement foot bi ressentir en termes d'infrastructure wala de wala de réalisation ginnaaw bi ñu jëlee kan laaj naa la ko dara ana xaalis bi ci tukkee dara maanaam Sénégal jël na kan kan moo ko ressentir ci sport bi lu dul benn étoile bu ñu tegal ci maanaam bu ñu tegal ci suñu mayo amul benn impact amul benn ressenti lan maam lan ngay toog ne lii kat kan bi ñu gañee perspective yi fonds yi lan maam lan lañ ko sant lu dul génn nañ jubilé ñu ñu tiire mayo yi mu am benn étoile mais amoon na mbaxus goo xam ne délégation bi defoon na fi débat de Cheikh xam naa ne moom ngay junj mais foog nga leeral ko. non mbaxus parce coowal terrain nga ca amoon. a ndaw fonds yi ñu alloué seen bopp gën a extravagant. fonds yi ñu alloué seen bopp dans la forme. non liñ ñu moom lañ leen defal comprime donc am na leneen lu ñu waxul. léegi dama lay laaj yow nan ngay comprendre ne jour. Mhm. encadrement technique. Mhm. encadrement administratif. Mhm. tolloo même prime. joueur bii doon joueur yii football. Mhm. ak encadrement technique ak encadrement administratif tolloo même prix loolu yan na maanaam. Ah, logiquement loolu benn partie la rek ci li ma la ñamal. maanaam encadrement administratif encadrement technique encadrement. ak jour mais teewlu ñoo doy ñu de doy ñu de nañ ko yemal ñoo tolloo même prime. sans compter terrain yi ñu leen jox. gis nga fédération moom l' argent du contribuable sénégalais dañ ko jëloon rek def ko benn béytimaan. point lu kenn bëggut lu kenn amut santen donc problème équipe nationale Sénégal c'est au-delà d'Aliou Cissé xam naa loolu. dinañ ci ñëw à la fin mais ci wàll wi nga xamante ne moo concerne Abdoulaye Seydou Sow ci responsabilité <laughs> mooy ñitti fédération bi ñooy premier problème bi balaa Aliou Cissé fédération. donc si je te comprends bien l'ennemi de la fédération c'est la fédération elle-même. mais bien sûr ennemi wu football bi fédération bi la ko wax. lii dossier dara ñëw léegi dana pendant léegi yàggatul Sénégalais yi dinañ découvrir li ci ne benn mafia organiser la rek rien d'autre point à la ligne. de alloué seen donc li Ousmane Sonko annoncé ne réew mi fii léegi ay fan dinañ tal leneen. man loolu moom non man loolu moom laata PM di ko wax sax man gëm naa parce que. des fois nga dox faxasalu ci benn xeer yi yëkkati xool gis turu sangam nga xam ni kii bu mbiram génnee. moom dana tal leneen. mais mais mais Cheikh ani bu ñuy càmbar mbir mi quoi c'est-à-dire bi la mal gouvernance euh, lan moo nu ko war a mën a yóbbee déjà on nu dit ñun ay état yu pauvre lañ pauvre ñu ci wàllu koom-koom wàllu richesse yàlla may ñu lu ne mais peut-être on a des ressources humaines yi nga xamante ne tout le temps li ñuy gàllankoor ci ñun les bawoo bon ñun daal xam nga ñun luy suñu problème mhm. les hommes qu'il faut à la place qu'il faut mooy ay nit yu bëgg réew mi mhm. ñun yàlla dañoo nattoon ñi bëgg réew mi ci ñañ dénk réew mi infine minorité lañ da leen di compter souvent sax dañuy fexe ba noo fay jugee parce que da leen di gêner lobby yi bu ñëwee bëgg la guerre nga bañ. Hmm. danañ def pression ba ñu tëbal fa moo xam directeur moo xam ministre moo xam lu mën moo xam PCA ainsi suite hmm. bëri na bëri na bëri na par exemple. Hmm. bàyyi loolu sax léegi mag. déet bàyyiwuma de. day leer de am na benn directeur internet yi nee nañ nee nañ par exemple mhm. am na benn directeur. Mhm. bu nekkoon ci nguuru Ablaye Wade. Mhm. bu yore woon benn direction bu laal ci affaire électrification mais kooku yi ñoo ko tëbal ñoo ko campagnal ñoo ko kabaal. Hmm? waaw yor seen presse di ko bashing H24 boobu presse yi sénégalais yi am lu ñu ubbeeku bii nii. am na journaliste bu defoon ay investigation bindoon ci livre. lobby yooyu dañ ko génne réew mi mosal ko xaalis ngir mu noppi li may wax yenn sénégalais bu seen xel dawee tuuti dinañ ko fàttaliku ci affaire électrification la journaliste bi defoon investigation dañ ko gé bind ci livre dañ ko génne réew mi jox ko xaalis ngir mu noppi. ana patriotisme. ah déedéet déedéet patriotisme yi. ba kañ ñuy dox di wéy ci. waa patriotisme daal. ni ko wéykat wi doxee ndax alalu mbooloo kenn war ko foowe. waa comme que patriotisme daal agsi na nañ amagum yaakaar réew mi moom xola ñaar patriotisme gumba tëxlu dof ci yenn yi rek a kay defar gumba tëxlu ci yenn médiation yeeg yenn ñaan faveur yi ak dof ci yenn wan leen carrément ni man moom ñëwuma pour caaxaan. kon l'air de dire que y a de ces maa ci teg sama conculi c'est révolu bas bu tegee concom ñoom ñoo koy déconcer le peuple va déconcer su boobaa. non foog nga dikkaat <laughs> bi nga ne bas bu tegee. ñun ñoo koy lan ñoo koy xam nga. donc c'est-à-dire que ce régime là n'a pas droit à l'erreur kon ils ont ils ont une certaine pression boo xamante nii euh, askan wi du leen baal xam nga Ousmane Sonko waxoon na Macky Sall na ko mhm. waaw am na internautes yu informé ñu ngi bind tuuru waa ji. <laughs> gars yi gars yi caaxaanuñu la. am na inter loo xam rek gars yi la ko gën a xam. moo tax jàpp nañoo fonk ak respecté ñu jar a baxal lañ ku jàpp ne dof ngay waxal rek. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal mais bu leen. waxaloon seen question yi. donc dinañ sélectionner trois questions ci biir waxtaan wi. yi nga xamante ni Cheikh Ousmane dina ci dikk ci ay leeral. ay ca Cheikh Ousmane. xam nga. Mm-hmm. Mm-hmm. Ousmane Sonko. dafa am lu mu waxoon Bassirou Diomaye. daf ko waxoon na ko. dégg man Bassirou Diomaye Macky Sall. Macky Sall mooy dig gi mu koy dig ni boo moytu dinañ la def ne Samuel Doe. xam nga Samuel Doe moomu noonu. Ousmane ak Diomaye ñoom bu ñu échecgee. Mhm. ah. bu ñu tasee yaakaaru askan bi plutôt. boo moytul ñoom la loolu nar a dal xam nga lu tax mhm. le peuple du du du leen tolérer dara mhm. Mhm. maanaam nguur gi bu indee déception gars yi dañ leen di fekk palais xam nga lu tax moo tax maa ngi dégg xawma kan naan benn jour muy wax naan président Diomaye day échec ma ne ko ñaanalal sa bopp jàmm jomaay bu échecgee réew mi jeex na point faras maa ngi koy waxaat nag loxo sénégalais yi baxal maanaam nguur gi bu échecgee mhm. c'est fini pour le Sénégal population bi dóom la ñuy def réew mi jàll dóom ñëpp perte ñu dem seen yoon kon li fi xewoon dafa nar a gën a pire ci exigence man ñaanuma man ñaanuma yàlla mhm. yeewu air boo xam dañuy naan jomaay échec na ou pas mm. kon kay yàlla bu mu am sénégalais yi moo tax nag ñi koy agité naan dana échec ak du échec man la ñaanal est-ce que ñoom nekkuñu ci seen agenda politique non même agenda seen agenda wu ko fekkee ndax balaa nga naan naam ne fa jomaay moom xoolal sénégalais yëpp war a indi seen loxo teg ci ngir mu dem. gaal gi bu diigee ñëppay diigaale rek mu jeex. am na am na kilifa bu ma koy wax mu ne ma.